alaikum les amis j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille, santé alhamdulillah. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, avec votre grande chroniqueuse Kenza 221, borom matricule 221, Donc, dans la télé, jamm ci une chaîne YouTube Kenza 221, mais bien sûr, la chaîne des news, la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. nee naa leen bépp actualité hip hop galsen bu ngeen bëgg a xam daw leen gaaw xool si ko ci suñu chaîne YouTube Kenza 221. mais bu leen fàtte abonné en même temps ngeen activer li nga xamante ne ni moo di cloche de notification bi dina leen permettre buñ dugalatee vidéo automatiquement di ngeen jot signal sans pour ngeen ni sonn fii wala fële di def ay recherche u quoi que ce soi alors gars yi tey nag dama ñëw pour wax ci benn sound bu nice te importance je vous jure un sound qui est très important sound bi nag 59 secondes de durée mais résumé l'actualité actualité Sénégal yépp lu xew 2021 et année 2023 sound bi tënk parce que vous avez xoolee que le Sénégal actualité bi yépp ci politique lay wax mais politique est xamante ne ni Ousmane Sonko. indi aji yogul yobul Sonko indi mamay nya jappal jàppal Macky tout tourne autour de au fait et lolu gis nañ ni affaire de viol la te depuis 2021 ba léegi ci lolu lañuy wax mais nak euh, liñ ay du yam ci bop borom moy li parce que ay bobu am nañu ci décédé te ils sont apolitiques sen yo nekku ci am ño xamanteni ni am nañ ci ay matériel yu yaako ñu ci am ay blessure aussi am na ci

ñi nga xam ne am nañ baat ci dëkk bi dañ leen di soxla pour ñu sensibiliser population bi en plus wax ak ki nga xamante ne moo di état bi. tey nag artiste bi nga xamante ni moo génnee sound bi mën naa ni bokk na ci artiste yi nga xam ne ñoo gën a engagé ci seen génération parce que tey def na sound bi wax naa ak population bi génne na li nekk ci xolam wax na ak Macky Sall mais le plus important mooy wane na position bu mu taxawee en tant que citoyen. à vrai gars lii daf ñuy neex en fait man sax laay wax daf may neex parce que dem na ba benn instant gars yi engagement bu ñu xamee woon rappeurs yi vers les années vers les années 2000 et 2012 ñu ci bari gisatuñu leen ci bien sûr nag am na ñoo xam ne ñu ngi génnee ba léegi. donc tey moom su ñëwee def li acte bu noobul la li ko war la aussi mais man lu ma neex la moo tax ma préféré wax ci ñëw partager ko ak yéen. sound bi nag il a pour titre doo bokk ki ko génnee mooy Element xel ñaar du groupe Akatsuki SN léegi avant ñu ciy dugg expliquer détailler analyser nañ àndandoo xooli un peu rek sur la vidéo ñëwaat léegi léegi let's go. Macky doo bokk Free nit dof Free Sénégal. alors gars on a vu un peu sur la vidéo de Element xel ñaar au nom doo bokk. alors donc beaucoup beaucoup de ça signifie quelque chose si vous vous rappelez en 2012 après il a dit que nul ne fera plus de deux mandats Mon Macky Sall fera deux mandats mais bon à l'approche des élections présidentielles 2024 la population a senti que Macky Sall dafa troisième mandat

Non pour un troisième mandat du mën a vidéo bi nag gars yi ñun ñëpp gis nañ ko et leer na naññ sax lii nag moo tax LMN def titre saan bi doo bokk il veut juste dire que Macky Sall du bokk aux élections présidentielles 2024 pourquoi parce que Macky Sall ci boppam moo non au troisième mandat et le fait que nous nul ne peut faire plus de deux mandats ba pare bëgg am troisième mandat bokk na ci li gëna plus indi ciow ci dëkk bi légui nag gars man Kenza 221 man je vous pose une question selon vous Macky Sall da wara bok aux élections présidentielles 2024 wala du bokk à vos claviers bayna mu répondez par oui ou par non. ci commencement sound bi nak bo leen dégloo élément xel ñaar mo ngi naan freiné do Free Sénégal. Il rend hommage à et à toute la population sénégalaise. Le pourquoi Parce que ça fait des mois que est enfermé d'un côté. Parce que dans le live, je bon yaramam et tout ça mu gros mais war na suivre live après nag ci lañ dégg ni pour l'enfermer ci gros mot en fait te pourtant dafa retourner jéggalu ñu ko doon seetaan ci live bi respect envers eux te bu ñu waxantee dëgg rek nit dof daa yàgg xeex ngir askan wi yàgg jël suñu défense mais surtout di xeex injustice il est un rappeur très très encore un rappeur très engagé di taxaw population bi tout le temps ñun saa yu ñu ko soxlaa moom day wàcc sur le terrain prenons par exemple ci show of the year bi muy def non mais gars yi ñaata nit ñoo fay nekk mën nañ ko compter non on peut pas compter ñaata nit ñoo fay ñëw di fa business est-ce que mën nañ ko compter non mënuñu ko compter bon business comme ñi fay ñëw di jaay euh, jaaykatu crème yi jaaykatu sandwich ñiy jaay ndoxee tout ça ñoom ñëpp lu tax ñu fay dem parce que événement bi moo tax dañ daan ñëw dund ci show parce que nit dof da leen di bégal ñoom ñi nga xamante ni dañuy ñëw pour jaay dañ ciy gis seen bopp parce que événement bi moo ko waral événement bu rëy la ba tax ñu tuddee ko show of the year dañuy ñëw dund ci show ñi nga xam ne dañuy jaay ñu ñëw jaay mais bu ñu paree ku nekk ñibbi ci jàmm au fait et à vrai dire l' absence de Nit dof dafa def benn impact man xawma ba xam def ngeen remarque bi ou pas mais absence am dafa def benn impact manqué nañu trop sax manqué nañu trop donc moroomu rappeuram su ñëwé ci saawoon ne Firi Ndi Dof vraiment lu ñuy rafetlu la devoiram la sax nak kon gaay nañ andando ñun ñëpp ci commentaire yi Firi Killer. Dof ki la lépp lu ñu mën pour qu'il soit de retour auprès de sa famille auprès de sa population dinañ ko def Firi Ndi Dof ki la gars ci commentaire la ko bëgg gis Firi Ndi Dof ki la lu tax mu ni free Sénégal c'est parce que ñun ñëpp la en fait c'est toute une communauté c'est toute une population dëkk bi moom <laughs> comme nekkatul dëkku démocratie lu tax parce que da ngay gis kenn kaas ay droit am ñu jël ko ne ko ràpp ci kaso bi wala kenn défendre boppam ñu tëj ko pourtant gis nañ yi fi am yëpp rey gi bari na sàcc gi yetu moo waral Free Sénégal donc na ñëpp nekk ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj ñun ñëpp xam nañ loolu jàmm ci la lepp xaj na ñepp nekk ci jàmm ñu yéenalante jàmm di dund ci jàmm ak ci salam il dit encore 2012 bi gal gi naré suux askan wi moko as biñ naré erroné sa code askan bé taxaw jox le mot de passe légui yaakaaruñ la fuñuy réggé suñu yaakaar yépp nga tass homme de tenue karangé askan wi mission la buñ ko sass 2012 bi gal gi naré suux askan wi moko as bon dañuy am fi ben technique buñuy wax euh, métaphore

su ñëwee bëgg imposer les mêmes propos que Wade wala sax propos yoo xamante ne ni yu wàdd moo ko sax tane mu bëgg koo imposer population bi non mais sam waay c'est bel et bien normal peuple bi génn manifester wu génnee li nekk ci ñoom parce que Macky mënuñu koo bañ a lépp lu ko wàdd bëggoon a def ba pare moom mu ñëw bëgg def même chose que Wade ah non non là duñ ko nangu homme de tenue kaaraange réew mi mission la buñ ko sas c'est-à-dire homme de tenue Nous, ñoo protéger les lépp ñoo voulons suñuy am mais pas de nous ay lacrymogène wala duñu tirer ay bal rayel ci kaw askan wi. on continue bu ngeen waté Elimane xel dans sa toute nouvelle vidéo au nom de la vous mu ngi la justice bi moy xalamal Macky gis Barthélemy di jazz, Jean, justice bi dafa en fait Macky Sall la fi nekkal mais pas la population sénégalaise non. lu tax mu ni daa demee boor ma fi euh, Macky la fi nekkal c'est parce que képp ku far ci Macky Sall wala nga bokk ci gouvernement wam mën nga wax lu la neex kenn du la tëj du du mujj fenn mais faral ak keneen nga xool lu ndaw ngay wax wala lu ndaw ngay def ñu jëlal ne la ràpp ci kaso bi moo tax mu ni justice bi mooy xalamal Macky gars yi ñu continuer bu ngeen dégluwaatee mu ngi naan xool bu jeex milliards yi ngeen fi dóor du mujj fenn disparition wu Didier Badji ak Mancabou du mujj fenn alors Didier Badji moom euh, il a disparu dañoo ne dafa lab ci géej gi Mancabou nag dafa am luñ ko jiiñ affaire de rebelle ak terrorisme parce que avant son décès dañ ko arrêté woon di ko tuumal ni ki fait partie du groupe de terroristes bu ñu arrêté woon fan yooyu noonu et euh, ba mu amee une semaine après son arrestation bon à vrai dire su ma waxee dëgg rek xaw ma lu jot ci prison bi après jabar ji ba mu rendre visite à la prison il ko directement mu l'hôpital directement hôpital principal à l'urgence parce que foofu la nék. après ba mu il a vu son mari dans une chaise roulante la tête inclinée derrière bi wër ko et quand il parlait à sa femme dafa ne jabar ji gis nga niñ ma def est-ce que gis nga niñ ma def dañ ma doon torturer loolu la wax jabar ji ñu ñaw euh, front bi ak fi nga xamante ne ni moo ñu le même jour après ses premiers soins ñu retournons à fi nga xamante ne prison. Nous prison ñu delloowaat ko prison avec son état bañ ko delloowaatee prison mu avons fa di souffrir de souffrir ci lañ ko yóbbuwaat à l'hôpital réanimation donc muy avons di que Badji mën ni instant yi nii seen famille rek ñooy souffrir certes ñëpp la metti ñun ñëpp la metti vraiment mais cette famille lu ñuy yëg ñoom rek ñoo xam

pourtant tëj nañ leen ci kaso bi ay ati ati at et ñi nga xamante ni dañ leen a jiiñ ay milliards jiiñ leen ay millions ñu ngi génn di dem fu leen neex di dem di ñëw justice bi waxul ci ñoom tous la justice dit rien sur eux. gars yi pare gu ñu continuer waat ci sound bi bu ngeen dégluwaatee Element Xel Ñaar mu ngi naan ay dullu faux billets Bougazelli te mujjul fenn. moo tax nga ah, calme non aw ma fii fii fii kon sax ak suma bakkanu njaboot. yàlla ak suma bakkanu doom. lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon si oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox dañ ma ko jox waaw kii mbaa baax ay waay man yàqu naa waaye. ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay. ay waay man yàqu naa waay. ay waay man yàqu waay.

alors gars gis ngeen nag lii mooy sound bi mu nekk sound bu nice te am importance moom élément gis nañ son engagement envers le public envers la population sénégalaise sound bi est un et thème bu am solo actualité aussi comme je vous l'ai ko bon j'ai beaucoup apprécié son geste parce que ni la hein. ñun ci genre situation yi buñ ci nekkee dañ ci soxla présence nous rappeurs parce que nous ñun lañ fi comme ñun ñun ñu leen fi nekkale ñoom tamit noonu lañ ñu fi nekkalee ñoom bu ñu génnee dara ñun on fait de leur mieux pour dem xooli ci ko donc ci yenn situation yi buñ ci nekkee dañuy soxla seen présence bu baax a baax a baax donc di ko wax félicitations à toi Elimane Xel Ñaar sound bi nice na et neex na trop sax vraiment je vous dis quelque chose Macky Sall nag daa dëgër bopp trop sax yéen a ma gën a xam moom bu xasee ba jàpp kenn mënul wax ba mu bàyyi mais 2024 yéen a moom seen carte xool leen bu baax a baax kat ngeen koy sànnil fait présentation ngeen xool bu baax a baax kan ngeen koy sànnil yoonu jàmm soriwul wasalaam <laughs> donc wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen gisee le sound la vidéo mais aussi moom élément noo leen ko gisee selon vous i day bokk wala du bokk avocat bàyyi naa mu tëmbul N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, mais aussi de liker. Kenza 221 à bien sûr votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu ñëpp hmm, gros bisous à vous love you all guys à la prochaine am leen au revoir.